ñu ñu lu tax journaliste sénégalais naan ñu bàyyi la nga nuyoog internet sénégalais lu tax ñu naan ñu bàyyi auditeurs yi ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yi lu tax ñu bàyyi la nga tàggatoo euh, bon habitude xam ne wala peut-être ñun baax baax la suñu ay ñun ñoo ñun ñoo suñu ay civilité la bokk quoi certainement d'accord d'accord léeg-léeg nag nga dajeeg benn réalisateur boo xam ne daal naan temps bi temps bi temps bi temps bi kii ko kii ko taxañ ko xam nga kontaan nañu ñu ngi nuyu internetu seen teraanga yëpp ak euh, ñi seetaan ñëpp di leen wax yàlla na yàlla defal seen ay mbir seddal seen xol ubbi leen buntu xéwal yi yaatoo yaatoo yaatoo fa ci nekk sa soxla aka xam yàlla na yàlla fajal la te lépp cig la. Hmm. ci déjà rek ban jàngat nga am ci yëli élection yi. alors 131 boobu nga xam ni journal Le Témoin génne na ko démb euh, man dama bokk si ñuy wax ni moytu leen moytu leen mun mën na nekk 150 jëm kaw ci sama gis-gis ba gàtt ah 46 départements 41 départements gagnés par Ousmane Sonko euh, tête de ak son équipe ah ça veut dire quoi ça dire que c'est plus la majorité. c'est ëpp na sax trois quarts daanaka donc quarante cinq départ ou quarante six département plutôt ay Kër Massar nga jël quarante et un mu des cinq département lu si des donc normalement euh, ils y vont très fort le PASTEF donc euh, je pense que maintenant en terme de jàngat qu'est-ce qui s'est passé c'est une razzia c'est une tsunami wala un tsunami lu ñuy wax le tsunami tubaab dafa am suuf suuf vraiment défini ak indéfini ak pronom oh, article lëlaale lenn daal xam na ma ko ci yaa Seyda bu ñu waxee dëgg rek ci yàlla tax le peuple sénégalais a choisi il a choisi ci élection présidentielle tànnaat na ci élection législative loo xam ni mbindeef mënu kaa dindi donc aujourd'hui Euh, di zone nous la vérité, Ousmane Sonko est, est, un niveau vraiment fort boo xam ni na gars yi nangu cette réalité là parce que lu yàlla def plus nga kaa bañ plus muy gën doon lu sunu boroom def plus nga kaa bañ plus loolee di gën a doon di gën a nekk donc daa sonn l'opposition si est très mal prise pourquoi pourquoi ñu dugg ci ci ci parce que à la place de mener une campagne l'opposition était là à semble-t-il mel ni ku ut xeex et c'était pas la bonne posture voilà dem ak va-t-en-guerre taper sur la table non parce que le peuple a choisi quelqu'un ce peuple là qui a choisi bu fekkee moom nga soxla mais boo ñëwee ne ko non non non kii kii ko baax taper sur la table non bàyyil ba processus bi xam nga bi ñuy wax naan président Macky Sall na dem processus bi daf ca egg 2012 tëb ñu tëb rek ne Macky Sall na dem waaw 2024 pourquoi ñu bëgg a tëb rek ne non ñii problème la ah waaye alors que Macky Sall pendant 4 dara xew te 4 yooyu dañoo traîner traîner dëkk bi lu ñu doon wax dëkk bi dafa màkki aujourd'hui parce que xam nga lu indi lool nguur bu bees bu ñëw day def état de lieu état de lieu bi nag mën na ñëw tëj robinet yëpp daal ne bon on arrête tout ñu contrôler la bonne formule et on l'a toujours dit ce n'est pas d'arrêter tout et de contrôler même bu dee da nga naan su ma arrêté wul du mu mën contrôler non il faut faire cas par cas de façon progressive cas par cas di gis des failles di ko dindi et cetera li jot a jàll nag nga xool noo cas d'abord au fur et à mesure parce que sooy defar muy gën di améliorer wu ci nit ñi la nga war a lijjanti di nga ko mën a lijjanti mais soo tëjee lépp ba pare bëgg a lijjanti. day saf ci nit ñi su safee ci nit ñi nag opposition bi day am lu ñu wax maanaam 6 à 7 mois yu ñu toog affaire yi xaw mel lu dëgër nit ñi commencé di jàmbat l'opposition léegi nag opposition moom xam nga ci la waroon la la waroon dox dox ci dénonciation wu difficulté yooyu peut-être yamandi fa mais malheureusement dañ fa teg loolu ki peuple bi tànn ñu tiire ci kaw peuple bi tourné jàkkaarloog ñoom li peuple bi jàkkaarloog ñoom lu mu jur

tey jii nii bala nga ko doon xam ñu ne woon référendum euh, ça allait encore plus fort euh, je pense que mais encore que boo jëlee ci cas bi par exemple mais la majorité des votants dañoo dañoo tànn à 54 pour cent un président sur la base de la décision ou, ou, ou de faire élire quelqu'un de celui-là qui était embrigadé ñu jël ko téye ci kaso bi te du yoon Ousmane Sonko parce que plus nga kaa def mal muy gën a am aura plus mu gën a am aura plus muy mën a faire ak défaire et c'est ce donc tey jii nii ba ca ñamu àndaloon ñëpp ils ont perdu par son influence léegi nag la cette réalité là boo ko nangoo daf lay sonal te da lay yàqal lu bari la meilleure posture pour man bi opposition boroon am. c'était pas forcément da di aller frontal di diw dina xam ne on va lui montrer que non. ils ont raté bi mais comme oto bu waroon dem Thiès non jubal yoonu ngor bi di xët nag ñu ne ko géej nga jëm de date seen géej nga jëm mu naan ma yoon bi fii la te Thiès a ngi nii. c'est ça que l'opposition sénégalaise a fait et c'est triste pour eux malheureusement mais le peuple est content. de confirmer son élection de la présidentielle par ces joutes la là de législative lenn daal la laa xamal ci élection yi jàngat bu mag lañ ci war a am moo dine nit kenn ko xeeb beneen bi moo dine Sénégal dafa soppeeku léegi beneen sénégalais moo am xam nga ban ñenn ñi nag ñenn ñi nag léegi-léeg may dégg benn kàddu waaw di ngeen xam ne ñii ngeen fal dem leen rek léegi-léeg ma dégg après nag ñi ñu fal il faut pas qu'ils dorment loxo leur laurier ñoom seen combat ngi door a commencer parce que léegi ñoom amatuñu adversaire seen adversaire yi bopp lañu seen adversaire yi peuple lañu peuple bi ànd ak ñoom tey ñoom dootuñu jono keneen de peuple boobu la ñuy jàkkaarloowaat donc réussir kese kese moo leen war et pour réussir il faut énormément d'humilité ci les dirigeants. they have to be humble. Bassirou Diomaye Diakhar Faye kanam boobu la wone wane. man Sonko kanam boobu la wone ñi ànd ak ñoom jàpp naa ni kanam boobu la ñu wane léegi nag ça doit être concret ci directeur d' agence ministre conseiller kuñ ci nommé te xam nga poste bu ñu la nommé nii ak a ñàkk wóor ñu ñu fal la nii nome la nii nga war a tàmbali xëy ñetti weer rek kii la faloon daal de non non kii dem koy wàcc. xam nga wóorul moo tax boo ci wekkee sa àdduna souvent mu ngi juum par contre dos bi foofu la nekk man ne ah man kat dañ ma dénk loo xam ne boo xefee suba suba mën nañ ma wàccewaat kon xaaral ma def ba ñu téye donc chaque jour da nga war a def luy tax ñu conforté la ci poste bi ba pare di ngay gën di yokk mu mu feeñ ci liggéey bi ñu ne non kii kon nañ ko gën a responsabiliser dos boobu nag jàpp naa ni euh, le leader du Pastef Ousmane Sonko defe naa transmettre na ko ñi mu nekkal am naa ci yaakaar maintenant nañ gën a moytu arrogance.